asalaamaaleykum mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen rubrique sud fiscalité tey jii nag ñuy waxtaanee wàllub modalité d'imposition ci salaire yi ak remboursement ñeel wàllub l'impôt boobule dañ ciy ànd ak Mamadou Awa Fall inspecteur principal des impôts et domaines la yor wàllub contrôle bâtiment ak travaux publics yi ci secteur immobilier ak régime dérogatoire ci direction des grandes entreprises nekk ci DGD monsieur Fall ñu ngi lay nuyu. waaw soxna si maa ngi lay nuyu. nuyu auditeur auditrice yi Sud FM yëpp. monsieur Fall ndax mën nga ñëwaat lépp lu lalu euh, ci wàllu wàllub euh, impôt la salaire yi. impôt sur le revenu traitement et salaire mooy impôt bi nga xam ni ñëpp ñi nga xam ne dañ leen a jël ñuy liggéey. ay liggéeyal ay nit. ñoom ñoo koy fay. waaye impôt bi aussi buñ koy calculer dañuy jël maanaam xaalis bi ñu lay fay yëpp. mais aussi bu fekkee aussi dafa am ay avantages ya nga xam ni dañ la ko jox. Euh, te bokkul ak salaire bi. avantage yooyu aussi dañ koy calculer dolli ko ci impo bi léegi avantage yi nag bëri na mën ngay liggéey fenn ñu jox la oto ngay liggéey fenn ñu lay fayal sa facture téléphone ngay liggéey fenn aussi ñu jëlal la kër yooyu yëpp ay avantage la donc boo ko amee ki lay liggéeyloo jox la ko dañ koy calculer yokk ko ci sa salaire ndax impôt bi aussi loolu daf ci war a bokk impo bi aussi impôt ba nga xam ni la maanaam dafa ànd ak yërmande parce que état bi bala mu la koy laaj day xool toujours yan charge moo tegu sa kaw ndax boo amee jabar wala nga am ay doom koo ci manti am rek donc dañ koy wàññi bu baax a baax ñu tenir ci compte waaye bii nag xam naa ni ñi am jabar yu bari duñ kontaan ndax bu ñuy wàññi moom benn jabar rek la ñuy wàññil même boo amee ñeenti jabar moom moom benn wàññi rek ngay am pour jabar yi quoi ci yan anam la liggéeykat bi war a rek laajte remboursement. waaw parce que pour xam situation remboursement bi mën nañ commencer ci li koy indi d'abord. ndax impôt bi impôt annuel la ça veut dire que dañoo war a xaar ba at bi jeex. ñu xool li nga gagné lépp ci année bi ñu calculer impôt bi. mais état bi nag li muy wax entreprise yi. maanaam ñiy liggéeyloo nit ñi chaque mois da ngay jël benn avance ñëw versel ko nit ki. léegi comme benn avance lan la doon verser te calcul bi ci fin bu at bi jeexee lan koy mën a def mën nañ def calcul bi ñu xool que yow li la waa ji doon dagg ci weer wi ñëw di ko verser dafa ëpp li nga war a fay bu ko defee nguur gi moo la yoreel xaalis et cas yooyu da ngay ñëw ñu rembourser la donc li nga xam ni moom moo ëpp waaw bu amee euh, trop perçu d'impôt ban procédure la war a topp rek ngir rek ñu mun ko rembourser waaw remboursement bi aussi donc ñu wax bu baax date bi parce que pour nga def ko il faut nga ñëw def ko avant le 31 mars année bi ci topp ndax bu le 31 mars passé rek remboursement bi mënatul am danga koy ñàkk donc avant en mars war ngaa ñëw def sa demande demande bi nag jafewul lettre booy bind chefu service bi la nga indaale sa fukki bulletin salaire ak ñaar ñu xool liin la dagg après bu ñu defee calcul bi rek lépp lu ci ëpp dañ la koy rembourser service compétent bi nag mooy yow toujours c'est-à-dire yow fi nga dëkk dafa am toujours service bu fa ne donc service bi la gën a jege fi nga dëkk daal mooy sa service compétent foofu nga mën a dem pour ñu defal la remboursement bi. ci yenn situation le salarié bi mën a profité am ci yenn faveur yi. waa léegi euh, ki nga xam ne dafa war a fay impo boobu dafa am ay yu yuñ ko defal ndax euh, buñ demee ba calculer impo bi ba pare état bi day dellusi ni ko yow impôt bi ma calculer bu fekkee danga am ay charge damay ñëw wàññilaat la ko encore bu fekkee da nga am jabar dama la koy wàññil bu fekkee da nga am ay doom dama la koy wàññil bu fekkee aussi da nga am doom yuy continuer di jàng te ay majeur lañ donc loolu lépp état bi day ñëw donc wàññi laaleel la donc wàññil la impôt bi donc ce qui fait que aussi am na benn affaire ndax situation yi mën nga dem ba at miy doog a jeex ngay doog a marié man nga dem ba at miy doog a jeex nga doog a am doom loolu yëpp état bi day ñëw considérer que ci début d'année bi la xale bi juddu pour wàññil la depuis janvier di début de de l'année donc yooyu yëpp ay faveur la ya nga xam ne nguur gi daf koy joxe ci euh, impôt boobu. Mamadou Awa Faale ñu ngi lay jaajëfal. jërëjëf. soxna si ñi ngi lay gërëm bu baax di gërëm sa auditeurs yi ak auditrices. mbokk auditeurs yi fi la yem ak yéen ci seen rubrique sud fiscalité di leen jaajëfal ci déglu bi di leen jox dig dajee fii ak ñaari ci ay bés. et messieurs, bienvenue dans votre rubrique Sud Fiscalité. On s'intéresse aujourd'hui aux modalités d'imposition des salaires et de remboursement du trop perçu d'impôts. Alors nous accueillons Momodou Awofal, inspecteur principal des impôts et des domaines, chargé du bureau de contrôle des bâtiments et travaux publics du secteur immobilier et du régime dérogatoire à la direction des grandes entreprises. Monsieur Fall, bonjour. Bonjour madame, je salue l'ensemble de vos auditeurs et auditrices. Pouvez-vous revenir euh, sur les principes généraux d'imposition relatifs au salaire Donc l'impôt sur les traitements et salaires est un impôt sur le revenu calculé sur la base des rémunérations perçues par les salariés et les avantages donc en nature perçus. C'est un impôt annuel donc qui doit se calculer euh, sur toute l'année, mais aussi c'est un impôt personnel impôt personnel parce que l'État tient compte des charges de famille de la personne ou des possibilités de la personne pour déterminer cet impôt-là. Dans le cadre des avantages imposés, on a les avantages en nature tels que les voitures de fonction, la mise à disposition d'un logement à usage d'habitation, la facture de téléphone du salarié payée par l'entreprise, donc la mise à disposition de domestiques aux salariés etc. Quand est-ce qu'un salarié est en situation de remboursement Un salarié est en situation de demande de remboursement, donc lorsque l'administration a perçu un montant supérieur par rapport au montant de l'impôt dû. Mais pour être dans une situation, il faut comprendre que l'impôt sur le revenu au titre des salaires est un impôt annuel, c'est-à-dire calculé sur la base des rémunérations de l'année. Mais dans la pratique, on demande aux employeurs de par année de faire une retenue et de verser des avances. Comme c'est des avances qui sont versées tous les mois et que l'impôt est calculé à la fin de l'année, il arrive des fois que les sommes versées dans les caisses de l'État dépassent le montant de l'impôt dû. On constate le trop perçu donc euh, dans ce cadre-là. Mais il arrive des cas où les sommes versées ne dépassent pas le montant de l'impôt. Là, l'entreprise est obligée de faire un versement complémentaires. Justement, en cas de trop perçu d'impôts, quelle est la procédure à suivre pour bénéficier de ce remboursement? En cas de trop perçu d'impôts, le salarié a la possibilité de déposer une demande de remboursement au niveau de nos services, mais avant le 31 mars. J'insiste bien sur le délai parce que au-delà du 31 mars, le remboursement n'est plus possible. Et pour ce remboursement-là, il y a un certain nombre de documents à fournir. une demande donc adressée au chef de centre compétent, plus les 12 bulletins donc de salaire. Et là, l'administration va refaire le calcul. S'il y a un trop perçu, donc euh, l'administration va rembourser ce, ce trop perçu. Monsieur Fall, et quelles sont les situations de faveur au profit du salarié Voilà, pour profit du salarié, il y a quand même un certain nombre de faveurs parce que je disais tantôt que l'impôt le revenu sur les salaires est un impôt personnel, c'est-à-dire que l'État perçoit l'impôt en tenant compte des charges de famille et des possibilités de la personne. C'est pourquoi on a instauré ce qu'on appelle le quotient familial. À chaque fois que la personne se marie, on lui donne une déduction à hauteur de sa situation de marié et pour chaque enfant aussi, on lui donne un pourcentage de déduction. Et pour les faveurs, ça veut dire qu'il arrive des fois que des contribuables se en cours d'année, là, nous, on donne l'avantage à partir du 1er janvier. Même s'il y a naissance d'enfants aussi, c'est pareil. Donc à chaque fois qu'il y a naissance d'enfants, même s'il y a eu la naissance à la fin de l'année, on permet au contribuables de bénéficier de la réduction dès le 1er janvier de l'année. Aussi pour les enfants mineurs, parce que en réalité, on diminue les impôts pour les enfants jusqu'à l'âge de la majorité au Sénégal qui est de 18 ans. même un enfant qui a plus de 18 ans, s'il continue d'étudier, avec la présentation du certificat d'inscription, on continue à accorder la réduction aux salariés jusqu'à l'âge de 24 ans. En ce qui concerne quand même ces faveurs-là liées à la réduction d'impôts de charges famille, depuis 2008, on a la parité fiscale au Sénégal, aussi bien les hommes les femmes. ont droit à ces types de réductions. Monsieur Mamadou Aofal, je vous remercie. Merci beaucoup, nous vous remercions. Nous remercions aussi vos auditeurs et vos auditrices. C'en est chers auditeurs et auditrices de Sud FM Sen Radio. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans deux semaines.